asamaan ak kay ñëw ca guddi arab daan ko wax taariq wa ma adraka ma taariq ma lu lay xamal lay fëgg ca guddi di ñëw an najmu saqib moom lool day biddiw la boo xam ne buy bëtt la di bëtt la ndëm ga di yegsi in kullu nafsin lamma alayha hafiz ay bépp bakkan day nekkul illa alayha hafiz lu dul am na aji wattu ju koy wattu falyanzur al insanu mimma xuliq e way doomu aadama nay xool ca lañ ko binde xuliqa min ma'in dafiq ñi ngi ko binde ci ndox moo xam ne dafay puus buy génn di jañ buy génn yaxruju min bayni sulbi wa tara'ib ma nga génne ca la nga xam ne mooy diggante gannaaw ku góor ko ak yaxi dënn ko jigéen ko ca nañ ko daan firee soo dellu woon ci yenn mu fassiru nii ñu ne mooy awra ku góor ko ak awra ku jigéen ko rek comme na ko Maurice Bucaille di détaillé ci téereem boobu le Coran la Bible et la science innahu ala rajihi la qadir sa borom yàlla day ngiree delloowaat ko mu nekkaat nit e waay loolu ku ci am kattan la yow ma tubala sarair bis ba nga xam ne daañ feeñal ya nga xam ne dañ koo nëbboon fama lahu min quwatin wala nasir su boobaa day du ko ñeel kenn koo xamee ni nii ku koy benn kattan gu muy am wala benn ndimbal boo xam ne dina ko koy ndimbali mi ngi noonu benn aji ndimbal bu koy ndimbali borom bi ndaa di ne wasamai zatu raja mi ngi giñ ci asamaan borom dellu si ga wala ardi zaati sada di waat ci suuf borom xar ga innahu la qawlun fasl wax jii day waxi teqalee la mi ngi noonu wax ji dog la wa ma huwa bil hazl nekkul mukk waxi ay caaxaan ak i kaf inhum naam innahum yakiduuna kayda ñoom day ñi ngi fexe ay fexe waaye wa akidu kayda manit maa ngi fexe ay fexe famahilil kafirin muñalal yéefar yi rek am hiluhum rooyidaa muñal leen tuuti rek mi ngi noonu mbokk suñu boroom day waat ci asamaan di waat ci lay fëgg ci guddi asamaan mooy asamaan nga xam ni lam ca def moo ko xam lay fëgg ci guddi moo ko firi nee na biddiw la lu bari ci ñu ne mooy biddiw yi arab yi daan tuddee shura shura mi ngi naan shura mi ngi naan huwa rabbu shu shura shura la day naam wa huwa rabbu shura tubaab bi di ko wax siris xam ne biddiw la buy leer gi day tar gën a presque leer ci biddiw yi arab yi arab yi bu dañ ko doon jaamu nga xam ne day ñëw ca guddi donte ne loolu mu borom bi utiliser muy tariq muy aji fëgg arab di daan wax tariq koo xam ne nit ñi dañoo tëdd ba pare nga ñëw di fëgg en général daawul indi ay jam léegi nag borom bi mu ne waaw ndax ku lay xamal tariq mbokk dem nañ ba jamono ji ñu tudd ñuy dund nga xam ne scientifique yi yàlla may na leen ñu yóbbu ay sonde ci fa gën a kawe ci kaw asamaan ca lañ capté ay bruit yuy jóge ci biddiw yi ca bruit yooyu boo koy déglu dafay mel na kuy fëgg ab bunt tëg tëg tëg tëg noonu la noonu la ñuy dégg loolu jóge ci biddiw yi comme ni ko suñu borom waxe ab tariq ka nga xam ne day dóor mel ni ku ku yor sa marti di dóor tëg tëg gis ngeen borom bi ala kulli xaal mu ne biddiw la yoo xam ne dafay xot ci di ñëw te loolu mbokk julit biddiw yi suñu koy wax dañ koy natt ci année lumière yéen ndaw ñi toll ci jàng année lumière mooy lumière day daw trois cent mille kilomètres seconde fois minute fois jour fois nangam une année lumière day nekk neuf milliards de kilomètres mi ngi noonu bu ñuy wax biddiw yi rek ay année lumière lañ leen di wax mille année lumière un million d'année lumière mbokk lu nekk foofu ba pare suñu borom yàlla may kattan leer gam àndal bët ba waa suuf di ko gis kooku ku mënoon a yegg ci moom dana yéeme di am déet ba tax borom bi mu ne an najmu saaqib borom boobu nag nga xam ne moo yëkkati asamaanam def ci ay biddiwam ngeen di ko gis lumière ba di yëgsi ci yéen mu ne amul benn bakkan lu dul am na ko koy wattu te mbokk sa borom yàlla gis ngeen ni amul lu ko réer ci say mbir amul lu koy réer ci li ngay nëbb sa biir xol boole boole na la ak ay malaaka yu lay enregistré bépp bakkan sa mbir spécial la la yàlla jagleel loo xam ne bokkoo ko kenn laha alay lamma alayha hafiz léegi nag doomu aadama yi bokk na mbokk li gën a am solo lu alxuraan di défendre nga xam ne mooy baasu pas-pas yi mooy wéetal yàlla saxal na dee dekk am na gëm ne yonent yi yàlla ñoo leen yónni li mooy ñetti baasu ngëm donte ne ponki ngëm yi dem na ba six la cay dolleek muy gëm malaaka yi gëm téere yi gëm dogal yi waaye base yi mooy base boobu nga xam ne doomu aadama yu bëri moom la ñu weddi te mooy allaxira te weddi allaxira moo tax ñu weddi lu bari lu dul loolu borom bi ne waaw lan mooy seen lay lay bi mooy nit ki bu dee ba ñu suul ko mu nekk poussière kooku nu muy jógaate borom bi ne waaw doomu aadama xanaa xooloo sa cosaan loolu yàlla bindee waaw gars yi toq ma nii boo xam ne bu la takkoon fii léegi nga faxas ko ni mu dem suñu borom loolu ci la jëlee bind doomu aadama yow nga gëm loolu ba pare naka ngay weddee nag ne soo nekkee poussière yàlla da lay dekkalaat loolu moo ko xel mënu ko nangu moo tax borom bi subhanahu wa taala doomu aadama xool liñ ko bindee mi ngi jóge ci ndox su ñàkk solo soo xam ne buy génn day tëb di génn comme na ngeen ko xamee mi ngi noonu muy diggante différence entre menu yu ak masu masu en général day génn doon loo xam ne léeg-léeg sax doo ko yëg waaye menu yi moom en général fu muy génne da nga koy yëg ndax na muy poussé mi ngi génne ci loo xam ne ca ndiggi ñu góor ña ak dënnu jigéen ña comme nañ koy firee allahuma comme niñ ko waxe sànq am na ñoo xam ne sul bu dañ koy firee rek mooy awra ko góor ki taraib la ñuy firee mooy awra ko jigéen ki ay ci diggante ñaari awra yow doomu aadama ci nga génne doon ndox mu ñàkk solo mi ngi noonu suñu borom yàlla jël la foofee créé la nga nekk benn cellule mo cellule boobu mu jël ko divise multiplier ko par deux par quatre par million par deux millions par milliard ba nga nekk des milliards de cellules mu créé ci yow ay ay la nga xam ne mooy ay tissu tissu yooyu créé des organes organes yooyu mu tasaare leen yee nekk cerveau yee nekk nopp yee nekk bët yee nekk tànk loxo xol kenn xamul ñaata pièce détachée bu nekk ci yow doomu aadama te yaa ngi départ woon benn cellule waaw ku mel noonu nan ngay taxaw nag naan ku dee ba nekk poussière ku koy dekkalaat gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala ni ku mel nii day ci delloo ko waat nekkal ko nit ku ci am kattan la bis ba nga xam ne daañ nattu doomu aadama yi nattu leen génne seeni la ñu nëbboon lépp tubla sarair lépp lu nekkoon ci biir dënn yi yàlla feeñal ko su boobaa da ngay gis ah ak ak ak ak jaaxle dana bari lool ci doomu aadama yi lu bari li ñuy jugé nekk te demul noonu mi ngi noonu loolu it ñu war a góorgóorlu ku nekk ci ñun di sellal say jëf waaye di sellal sa yéene te xam ne jëf yépp mi ngi basé wu ci yéene mi ngi noonu suñu borom yàlla mën a ba keroogee day ka jaarul woon fa neex yàlla du am kattan ci du am ku ko dimbali ndax yàlla rek fay dimbilaate borom boobu moo giñoon sànq ci asamaan zaatil buruj mu giñaat ci wasamaa zaatul raja asamaan biy delloosi te loolu it mbokk base scientifique yi da koo dëggal asamaan mbokk taw bi ngeen di gis du ne dafa am ay géej yu nekk kaw asamaan fa la taw bi jóge di wàcc xale yépp loolu la ñuy xalaat mi ngi noonu ay géej ñoo nekk ci kaw asamaan fa la taw bi jóge di wàcc mais déedéet asamaan suñu borom yàlla day def ba jant bi mooy tàngal océan yi ànd ak vent yi mu am lu ñuy tuddee évaporation ndox mi daal di jóg dem kaw borom bi jàll wa ala boole indi ay ngelaw mi ngi noonu processus boobu mooy dem ba créer ay nuage nuage yooyee suñu borom yàlla nam koy dajalee ak yam wala yam koy boole mooy tax ba taw bi da mën a dellu siwaat kon taw bi ci as ci suuf la jóge woon dellu siwaat ci suuf lu dul ne borom bi ci kattanam océan yooyu nga xam ne trois quarts suuf ñoo ko ëmb taw ba fa lay jóge bu koy wàcce waat du ko delloo ci océan yi lu tuuti la cay delloo la ci ëpp ci suuf si la koy delloo muy wañe ne organisation boobu gars yi ndax mën na nekk hasard laa mënta nekk hasard ba tubaab yi da man scientifique dañ naan déserts yi gën a mag ci océan yi la nekk ndax taw du fa taw ndox mi fa lay jóge mu wàcce ko ñaareel bi mooy dañu naan quantité ndox bi am ren moo quantité ndox bi taw daaw c'est la même chose as asamaan day dellu si rek léegi nag suñu borom jalla wa ala mooy moo koy yusibu man yasha wa yusrifu am man yasha moo koy organiser ñii mu sotti leen ñu def ay inondation ñu bëri dee fa ñii mu nattoo leen dara ñëwul ci ñoom mais même quantité bi mooy bii ñëw wa sama izatu rajay borom bi it daa di giñ ci suuf mi nga xam ne mooy borom xar gi joxoon nañ leen fi misaal ci semaine bi rek tey jii demal nawet nga essayé jël benn pepp dugub zéro virgule nangam gramme nga gas dugal ko ci suuf peese liibaru suuf bu tooy xib liibar boo xam ne mat na ko dix mille fois teg ko ci kaw dugub bi bàyyi noonu nga xool une semaine da ngay fekk ne pepp bi am na lu ci génne ñax gu mel na coton bëtt suuf si génn taxaw gaa yi loolu ku ko xaral lu yàlla kon yàlla moo jox ordre suuf muy xar ngir gàncax di génn zaati sador loolu it muy wane ni bis dana mës a ñëw suñ borom yàlla jox ordre suuf mboolem néew yi ñu suudoon ci moom yépp daal di génnaat gis ngeen borom boobu nag mu ne lii day wax la joo xam ne waxu dëgg la caaxaan amu ci foo amu ci fa xawlul fasl lii yàlla wax ci alxuraan bu ñu demee loolu la ñuy fekk alaxira gaa yi yàlla lim ñuy wax loolu la ñuy fekk alaxira de gaa yi nag nee nañ déedéet lii moom ay menaces rek yàlla la muy la muy wax du loolu fi nga noonu ba ab say-say taxaw ci télé bi ñu jàpp ne ab waaraatekat bu mag la man daal sa war a daal jàpp naa mooy yàlla dajale ay jaamam xas leen ba ñu ràpp rek ni leen dem leen waaye yàlla ak yërmaanam yàlla du lakk doomu aadama yi waaye wallahi wax jooju bu ko tuubul bu dee sawara la jëm waaw mi ngi noonu képp ku weddi sawara sawar mooy sa wàccuwaay gis ngeen innahu la qawlul fasl suñu borom mu ne du ay caaxaan ma hu bil hës loolu tax bokk nañu gën a bon ñi foye alquran di foye caaxaan loolu alquran mbokk kenn du ko foy ma hu bil hës yaa ngi dégg borom boobu subhanahu wa taala mu ne yéeféeri nag ñi ngi fexe seeni fexe te mooy ngir fay diine ji ngir fexe la waaye ma jën maa ngi fexe te yéen ñëpp xam ngeen ne fexe ba mujjoon mooy keroog bañ dajee ci daaru nadwa ne Muhammad mii nag mbir mi ngi bëgg ëpp loxo lu ñuy jëflanteeg moom am ci ñoom ñu ne nañ ko tëj cib néeg bu mu génneeti am ci ñoom ñu ne nañ ko génne dëkk bi am ci ñoom ñu ne nañ ko rey ci gàttal lañ mujj décider mooy nañ ko rey rey googee ca la ko suñu borom yàlla jox ordre mu génn dem Madina gannaaw ba ñooñu doon réunion pour rey ko lu ëpp ci ñoom mu daje ñoom keroog keroog Badr rey leen ñu jaare fa tabbi naari jahannam kon ñi ngi fexe ay fexe man maa ngi fexe ay fexe donte ni de manière générale mbokk yéeféer yi ñi ngi fexe pour fay l'islam bi may fàttali benn américain dafa tuub dugg ci l'islam gaa yi laaj ko waaye yow lu tax nga dugg ci l'islam mu ne moom dafa nekk ci point stratégique xam gaa yi ñaata milliards la ñuy def pour freiner diine l'islam te gis nañ ne malgré loolu l'islam rek mooy avancé ci kaw suuf mu ne nag lii bu dul woon diine bu jóge ci yàlla kon fay na bu yàgg yaa ngi dégg loolu ko- loolu ko tax a tuub kon ñi ngi fexe pour fay l'islam islam moom mi ngi gën a avancé laajal Amérique laajal France laajal Espagne laajal Allemagne ban diine mooy avancé l'islam rek mooy avancé église yépp tëj nañu ñi ngi koy soppe ay jàkk lii mbokk kon pexe la pexe borom bi borom bi nag ne kon muñalal yéeféer yi rek muñalal lu tuuti mbokk dund ak àdduna lu néew la yéeféer lu mu fi bànneexu bànneexu bu mu la jaaxal ma ngay rey julit ñaak ma ngay noos ak bu mu la jaaxal léegi léegi dundam jeex mu daje ak boromam jalla wa ala mi ngi noonu Cheikh Ousmane